asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi ñuy teewlu fii si Dakar Buzz saa su dañuy am mbégteeg ca waxte di janook yéen rawatina ci émission diaspora bi di bitim réew nga xamante ni dañ si ànd ak yéen bés bu yàlla sàkk wa chaque mercredi di waxtaanee yenn thèmes ya nga xamante ne nii suñu doomu réew yi nga xamante ne ñu ngi si diaspora bi moo xam réew mu munti nekk bitim réew dañu koy jànkuwanteel te ñu leen ko teg du ñenn ñu dul ñu dul seen waar réew moo xam muy seen famille moo xam mu nekk seen jegeñaale moo xam euh, mu nekk euh, sax ki nga xamante ne nii xamuñu ko lépp rek fii la ñu koy waxtaane ci bitim réew daal di wut solution euh, ngir mun ko fee jëlee wa illaa sax bu mënta am mu daal di wàññeeku bu baax a baax tey mooy suñu ñetteelu numéro en troisième numéro émission bitim réew ñu am nag tey benn cas bi nga xamante ne nii man si sama bopp sax dama see yéemu vraiment di suñu doom réew boo xam ne moodu moodu la moom nag infidélité ak maraboutage yépp la boole donc anam bu doy waar sax mbir mu doy waar ba nga xamante ne ni euh, dañ koy bay rek euh, mu nettalil boppam ngeen déggandoo ko euh, ci émission bu mag bile di bitim réew ma nuyu ko ñu daal di door émission bi wa ilaa ñu daal di door waxtaan wi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ami. naka nga def mbaa yaa ngi ci jàmm. waa alhamdulilah maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm yu ndaw rek jàmm yu ndaw a ndaw. Ah, na bari waay <laughs> jàmm ji daa war a bari <laughs> macha allah. waaye sant yàlla rek sant yàlla naka foofu nag Sénégal yéen ngi jàmm. waa sant yàlla bu baax alhamdulilah Gora nga présenté wu pour ñu lay seetaan nga wax leen yaay kan. waa man la Gora juddoo Colobane maagee Grand Médine. nekk fii nag Espagne yàgg fi lool macha allah. Gora Ndiaye. Mm-hmm. Gora Ndiaye. Gora waaw Gora Ndiaye ñaata defagum foofu ca Espagne. Mm-hmm. def naa fi quinze ans. quinze ans maanaam fukki at ak juróom. def naa quinze ans Europe si. ñu am. Mm-hmm. fukki at ak juróom si macha allah. fukki ak juróom d'accord ah, ñu am mbégte lool dalal ci émission bi di bitim réew xam ne yéen a ko tax a jóg ah, nga bokk ci ñi nga xamante ne nii sénégalais yu am déception la waaye déception bi nga xamante ne nii ñu leen ko teg ñu ngi si seen réew mi ñu jógee ko di Sénégal est-ce que mën nga ñoo dikkaatal rek ah, si ban déception yow nga dund fii si Sénégal nga xamante ne nii ku la ko teg autant pour moi mi ngi fii si Sénégal te yow nga nekk foofu ca réewum Espagne daan sa doole ban déception nga dund góora waaw maa ngi dund benn déception ba nga xam ni vraiment déception la boo xam ni. Mhm. bu ma ko dundee léegi presque léegi mu def lu mat six mois. non waaw léegi mu def ay sept mois sept mois léegi mu def ko ay sept mois six mois waaw sept mois six mois. Mhm. te déception non ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na six mois ëpp na six mois les ok septembre la woon. waaw man septembre la woon septembre ak léegi presque boo xoolee mën naa ay huit mois non. Mhm. waaw kasi kasi boo xoolee huit mois déception bi lan la exactement. Mhm. waaw déception bi daal problème mu suma soxna la quoi suma soxna wax dëgg yàlla ndax benn jour dama mère bi woo. Mhm. waaw ma soxna benn jour la ma mère bi woo bu ma mère bi wooye suma yaay expliqué ma bu ma expliqué ne ma góor a gëmal yàlla àdduna noonu la xam nga. am na yoo xam ne bu mu la tax a xaru wala bu mu la tax a dugg si lii ak leneen ak leneen mën a waa maire bi lan lay wax nii bu ma ko waxee mhm. ñu dem ba côté octobre fekk mu tombeeg le quinze octobre moo nekk suma anniversaire léegi jour boobu noonu waaw avant boobu suma suma soxna woo ma suma soxna bu ma woowee na ma man de dama bëggoon mhm. dem suñu kër ndax man daal suma gàlle vraiment dafa nekk euh, kër gi dafa xaw a xat affaire yooyu jàppal bàyyil xam nga ma ne ko waaw looy wax ni mu ne ma mu ne ma daal actuellement nii fi ñu toll situation yi tar laay dund ndax fi ñu man kese maa fi nekk di toog man kër ga nga xam ne suma mère moo fi nekk ak suma suma yaay suma mère moo fi nekk ak suma euh, suma rakk bu jigéen ak sumay jarbaar ak suma papa kër googu amul benn problème mhm. booy bi ne ma man daal dama bëggoon dem quoi waaye bu man noo xaaral naa wax ak suma rakk bu jigéen bi maam jaara après ma woo ko mu ne ma noo bu ko woo bu ko woo bu ko woo mm-hmm. boo ko wooyee day mel dañuy jaxase man te ma woo ko moo ko wooyee noonu mm-hmm. wo maire bi woo maire bi expliqué ko woo sum papa expliqué ko na ko soxna si daal dama bëggoon wax dëgg yàlla mu dem dëkk ba ndax instant bii ni mënul nekk si kër gi te jaara du ko jàppale su ma rakk bi na ma noo loolu mënul nekk ndax instant bi man wax dëgg yàlla bu may woo añ bu añ jotee daf may woo carrément na ma ñëwal añ ma masuma woon benn bët boo xam ne bët bu ñaaw la ko a daf may woon ma ñëw la añ kon bu amee lu ko naqari te njël lu mhm. nekk njël la nga xam ne njël lu metti la nee na war na ma ko woon carrément ma yëkk ma gis ko si moom te fu mu mhm. toggee añ dafay ñëw woo ma te man gisuma ne kër gi sax metti na mhm. ndax kër ga nga xam ne xale ñoo fi nekk te paa bi du lekk daanaka mère bi du lekk kon kër gi amul benn problème sama yow mu nekk foofu nag lijjantil say problème waaye actuellement suñu diggante nga maandu si baax a baax a baax baax ko tontu ma am ku ma waxtaanal mu ne man non loolu moom dëgg la quoi ndax bu nekkee moom wax dëgg yàlla dafa nekk ci kër gi te du jabar du dara amul droit toog amul droit def dara bu ko neexee quoi ka nga xam ne moo fa nekk muy sa jabar moo war a toog man quoi ah, amul problème ma bàyyi lépp sedd après booy bi daal benn jour mu ne ma non damay dem bu nee ma damay dem man man tamit compre ñu wax ba sama dënn tàng quoi ba sama dënn tàngee après mu ne ma xaaral ma jox la sa papa téléphone nga wax ak moom ne ko may ma sa may nga ma sama baat bu ma joxee paa bi man tey ma jot paa bi paa na ma loolee ni coow si guddi gi nii ma ne ko non papa mhm. ma ma ne ko non du dara paa bi na ma damaa bëgg nga expliquer ma ma ne ko non du dara yaa ngi may dégg mhm. ya yaa may dégg waaw maa ngi lay dégg après ma jël téléphone bi bu ma jëlaatee téléphone bi mu ne ma non yow nga waroon a jàpp si fu a jàpp da waroon a jàpp si fu nga a jàpp ma ne ko fan laay jàpp mu ma da ngaa waroon wax rek maye nga ma baat quoi ma ne ko ma may la baat non loolu mënuma ah. jaakaarloog sumu papa di ko wax quoi mun a ma non loolu benn genre dil teg la quoi loolu mun benn genre ah ku la wax ne benn dil bu muy teg la waa su ma jabar su ma jabar moo ne ma non loolu benn genre dil bu ñu war a teg la rek paa bi da nga naan ko may nga ma baat pour ma dem dëkk ba bu ma demee dëkk ba noppalu moo la wax ne pour ngeen teg dil yéen ñaar nga ne may nga ko baat waaw man a may naa ko baat waaye bu ma joxee numéro téléphone bu ma joxee paa bi paa bi def na ma loolee ni coow si guddi gi ma ne ko non du dara mu ne ma bu ma la joxee sa papa lu tax. dëggaloo sa bopp léegi moo hmm? tax. moom lan moo tax mu ne moom kut ko kut day dem dëkk ba ba ko ba ba mu ko jaral mu ne nga wax paa bi ne ko euh, euh, may nga ko sa ba may may nga ko baatam pour ngeen diil ngir mu mën a dem lu tax mu ne kut ko kut moom day dem. non kut kut mu war a dem dëkk ba instant boobu mooy benn sëriñ bu naan. Mouhamed Gueye borom kànnaar bi moom la doon jëflanteel te man instant boobu xaw ma si dara te instant boobu moom mu ko ëmbal Mouhamed Gueye nga man. Mouhamed Gueye borom kànnaar bi te mu dëkk parcelle unité 16. moo ëmbal sa jabar. moo ëmbal suma jabar waaw Mouhamed Gueye borom kànnaar buñ koy wax tamit nekk Gambie te jabaram tudd dëkk. Mhm. Mhm. waaw. après nag bu ma expliquer loolu man tamit comprendre ma si lenn fekk moom dafa bëgg a dem dëkk ba bu demee dëkk ba jaxase affaire yi ndax instant boobu ñoom ñu ngi koy jéem a yàq no buñ koy jéem a yàq nag après. ñan ñoo ko doon hmm? buñ koy jéem a yàq avant man ma koy avant ma koy yëg man huitième mois bi sa lañ ko doon jéem a yàq man instant boobu yëgaguma ko woon. waaye ndaw si moo ma expliqué loolu da moomu wala. Mhm. waaw dañ doon nekk ndax dañ doon ma bokk daanaka di liggéey ñoom ñaar Mouhamed di ko liggéey Mouhamed di ma liggéey Mouhamed bu mu demee ba si yàgg sa nee na ko man lu ma la defal tamit bu fekkee mënuma ko man man naa la wutal yeneen sëriñ ndax man am na sëriñ yoo xam ne bu ma demee boo ma joxee cent quinze mille wala nga jox ma cinquante mille bu ma demee Gàmbi damay yëkkati ñooñu yëkkati benn trente mille franc wala quarante mille jox leen sama weccet ma jël ko teg naa suma moonin booy bi jël suma ah pour ñoom ñu may liggéey te ñu ngi doon ma liggéey carrément nekk ci man. mais sa soxna lan moo ko jaral loolu koo xam ne sa soxna la xam nañ ne boroom kër ak soxnaam nu ñuy faral di jégalanto moom mu dem di kumpuloo ak di la liggéey ba ñu sekk yenn yi ba mu ko ëmbal nu mu fa demee noonu. waaw su ma soxna instant boobu noonu fekk na maa ngi projet Grand Médine yi berté bi mu ngi génn berté bi waroon jaar suma gaale papa. Mhm. bu jaar suma gaale papa sant boobu nag si laa profité ñëw Sénégal bu ma ñëwee Sénégal na man kon lu mu metti metti man suma gaale mën naa ko defar bu ma nee naa defar hmm. suma gaale commencé nekk si fondement yeeg yenn affaires yi xam nga ma ne non hmm. man yàgg naa Europe hmm. normalement ñoom sam papa jox nañ leen terrain Malika Plage ma ne non amul problème waaye ak nu mu mënti demee rek terrain yooyu ñoom dañ leen di jëlal kër dañ leen di jëlal logement six mois man a waa ndegam dañ leen di jëlal logement six mois man naa profité defar suma kër mhm. defar fondement am yu ma jote yëkkati buñ demee ban war leen yëkkati mhm. rek xaw ma kañ la sa waaye leen waree yëkkati fek sama tabax sori ma ñëw dugal leen suma gàlle mhm. bu ma ñëwee ma dagg ma dagg deux mois quinze jours loolu mu ngi tombé deux mille dix huit deux mille dix huit bi ma dagg deux mhm. mois quinze jours après su ma gars nga xam ne ñoo nekkoon si projet bi ku mel ni Laye Diaw ku mel ni Maodo ma toog ak mhm. ñoom Maodo na ma góor a mën a ñu ne ma damaa bëggoon nga toog rek pour fekk affaire bi ndegam paa bi mag la te sa benn rakk nekk fi mu ngi Brésil sa beneen rakk bi dafay liggéey après yow nu manti demee rek nga toog fekk projet yi taxaw say mag taxaw say say parents quoi ndax mhm. lii mën naa am benn teranga ba nga xam ni tey la ngay dem si àll bi di ko wuti ji te yàlla dogal mu nekk projet bu génn kër yi war si bokk da nga war a taxaw mm-hmm. ma ne non léegi damay dem mm-hmm. waaye rek ma dem mm-hmm. ñoom laay na ma noo toogal toogal ñun dëgg rek lan lay wax après man tey mën a garaawul ma ñëw na soxna si mun ne ma ah, ma ne ko léegi dama bëgg a toog soxna si na ma demal looy toog soxna si na ma doo dem looy toog ndax instant boobu ah? soxna si na ma doo doo dem ma ne ko non damay toog xaar affaire yi yokkaat billet bi booy bi na ma waa léegi ah xaw a mer bu mu meree nag ma ne waa léegi lan la xanaa moom man bu ma ñëwee fii Sénégal presque bu ma nekkee Europe dama koy yónnee xaalis bu ma ñëwee Sénégal nag damay xam ni vacances laa nekk koi xanaa loolu moo tax ma bëgg a ñibbi quoi loolu moo tax mu bëgg ma dem ma ne waa amul problème léegi ba yàlla dogal yaayam benn jour mu jaar fa yaayam bu mu fa jaaree jóge Kayaar bu mu jógee Kayaar si kër euh, hmm. si ndijaayam bi jaar suma jaar suma kër bu mu ñëwee suma kër toog ak hmm. man waxtaan na ma ah, xam nga yaayam suma mag la booy suma jarbaat la ah donc soxna si sa mbokk la. waaw suma mbokk la yaayam boo xoolee ku jur yaayam ak suma yaay ñoo bokk ak baay. ndeysaan. Mhm. yaa may dégg. waaw mag ngi lay dégg bu baax. waaw léegi nag bu mu demee noonu yaayam na ma ah dégg naa de yaa ngi defar sa kër ma a ah mu ne ma waa yaa ngi defar sa kër sa waaye incha allah da ngay bàyyi ba sa kër pare. bu sa kër pare incha allah bu la neexee sax nga dugg si deuxième femme yaa xam daal ma ne ko non yaa bàyyil tooj man du ma def yooyu quoi léegi tombeeg booy bi di dugg si si néeg bi ma ne ko ah sa mère mu may tooñaa naan ma bu ma neexee bu suma kër pare ma takk deuxième femme wala dara booy bi na ma non ba nga tal ko boo ko talul doo ko def <laughs> waaw bu nee ma ba tal ko boo ko talul doo ko def waaye comprendre ma wax boobu aw amul dégg-dégg si man après man comprendre ma lan la après man defuma ko problème. d'accord xam nga. waaw. après ma commencé tabax bu ma commencé nekkaat si tabax bi après sum benn jour sum benn ga suma gaayan bi alaaji ñoo yarandoo alaaji na ma go mën a mën a mën a tabax bi daal mënatuma dem ko ma ne ko non ni nga continuer alaaji na ma mënatuma dem. ndax man daal fi ñu toll affaire yi dara laa si mm-hmm. bëggul quoi fekk moom xam na turo alaaji yi yóbbu na mm-hmm. ko sëriñ si léegi su ma yaay dama woo ko nga yokkal ko après moom pour mu am doole ma yëkkatiwaat trois cent mille tegaat si table bi yokalaat ko problème mu tawax bi après alaaji dem ba si yàgg daal alaaji dama góo mënatuma dem maag moom ñu xuloo xam nga après mu bàyyi chantier bi ma waat beneen keneen jox ko ko kooku dem ba si yàgg di daanu di feebar ndax xam na turam laay seeg après ñu dem ba si yàgg kooku di daanu di feebar après kooku na ma mënatuma ko yeggale quoi ma ne ko ah léegi ñuy def noonu. lu waroon lu waroon ñu siy hmm? génnee seen loxo ne mënatuñ ko yeggale. lu waroon ñu siy génnee seen loxo booy bi bëggul mu booy bi bëggul mu yegg. booy bi bëggul mu yegg. ndax lan. ndax lan lu tax bëggul mu yegg dégg nga yaay ji lu mu wax yaay ji nee na ma bu la neexee sa kër bu taxa taxawee. ba nga bu la neexee bu sa kër pare incha allah bu neexee yàlla bu la neexee nga takk première fa deuxième femme troisième yaa xam daal munoo ma ba ba nga tal ko bu ma ko expliqué ne ko dégg nga sa yaay mu may tooñ munoo ma ba nga tal ko ba nga tal ko boobu nag mooy bu ma ko talul du ma ko def mhm. yaa may dégg ma lay dégg bu baax waaw léegi munoo ba nga tal ko léegi bu ma ko talul du ma ko def après nag si laa dem ba si yàgg benn copain benn jour woo ma bu ma woowee ma ñëw non ma mm-hmm. ñëw sance copain bi na ma gaynde ma naa ah, mun a ma waaye man barki démb dama gis benn femme bu fi ñëw ànd fekk benn euh, copain bu yor moto quoi ñoom ñu mel ni daal si ginnaaw tabax bi lan jaar noonu kooku di yëg si kaw ndax instant boobu sàncee bi def na dem naa ba wërale ko ka xam nga ba jël ba mu am buntu daal waaye am na beneen cour bi noonu boo mm-hmm. yéegee rek da nga koy sëpp quoi côté boobu mooy côté fosse bi quoi léegi waa ji ne ma man daal gis naa mhm. benn gaan bu fi ñëw xam nga yéeg waaye ñooñu daal sàcc ñu woon dara waaye dafa mel ni dafa am ku wàcc yore ay biteel affaire yooyu ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma gaynde ma ne ah affaire bi ma ñëw wax ko ko suma yaay na ko yaay mu ne ma ma ne ko bu may tabax chantier bi am na benn gel benn gaayan daal bu ànd ak benn gel yoru scooter am yu mu fa def man nag booba man xalaatuma ni suma soxna la wala man naa moo yabal ay nit wala dara moom la woon non waruma sa ba xam moom la cent pour cent waaye action yi bu demee ba am lu mhm. bëri rek dama ñaaw njortu dama ñaaw njortu ndax lu tax ma ñaaw njortu mooy voyage boobu sax bu may dikkaat fii Espagne mën naa ne la voyage boobu bu may dikkaat ñëw naa ba aéroport toog fa trois heures de temps di nelaw si aéroport bi ba vol bi bàyyi ma fa ma fàtte ni man sax dama war a peese sumay bagage ndax la ndax instant boobu noonu man instant boobu noonu lu bari lu bari rek xam nga ñu ngi sama kaw ñu ngi sama kaw di ma liggéey ñu ngi sama kaw di ma liggéey te am na benn instant boo xam ne nii maa ngi dem ba génn kër gi am na benn instant boo xam ne bu ma génnee si mbedd mi damay sëqat sëqat sëqat am problème delluwaat delluwaat si biir kër gi bu ma duggee si néeg bi rek damay tane ma to bu ma génnee kër gi feebar bu ma duggee tane woo sum benn paa wax ko ko paa bi na ma amul benn problème léegi boo ñëwee ma defal lay affaire yàlla baax na daal après jour boobu sax moom laa yónni mm-hmm. ndax dama dafa ma jige woon ba nga xam ni parce que lu bëri daf ko xam si man jour boobu bu mu ñëwee après dafa mm-hmm. ñëw sa na ma affaire yi dafa ci mbuus la ko defal mu ne ma am na bu tuuru quoi ma ne ko kutaakut woo paa bi dekoon na ko dangay dem mu defalaat la ko après paa defal may affaire yi waaw léegi bu ma toogee si néeg bi mën naa toog si néeg bi trois jours du ma génn néeg bi pare saa après yeneen amaat yoo xam damay toog si ne bu ma ñëwoon seet si la sa kër sa dafay mel da naan ma demal si kër gi demal demal demal ñibbil ñibbil ñibbil damay toog sa kër waaye sa xel du fa nekk fii ñibbi ma dugg su ma nekk te yooyu ay def-def la. Mm-hmm. yaa ngi dégg. waa mm-hmm. waaw ba brise sa mère suma copain benn jour mu ngi ma woo téléphone di ko wax benn gain quoi naan ko góore boo ko woowee fekk bu nekk gàlleem sa du nangoo génn quoi. ma ma wax ko ko moom na ko yow fii yow xaw ma loo ma def ak foo a dugal ah ndax man fu ma mënti dem tamit suma xel si néeg bi rek lay nekkaat mu reetaan affaire yooyu quoi te xam naa ne yorul bëriwul bagage bagage yi nga xam ne war na ma mën a téye noonu ndax vacance laa ñëw te dama war a régler sumay soxla di jënti samay bopp waaye loolu yëpp def na ko pour loolu bu ma tijee bu ma tegee suma calpe bu ma yóbbee cinquante mille wala quarante mille génn ak moom bu ma ñëwee mu yëraat calpe bi di xool lu may indiwaat d'accord. Hmm? maa ngi lay dégg bu baax. maa ngi koy fàttaliku sax benn jour maa ngi koy fàttaliku taajal na ma ceeb ceeb bu ma taajal sax daf ma taajal ceeb bi ba noppi gayan ma lekk si ceeb bi tuuti na ko ceeb bi dafa mel dafa am lu si nekk ndax dafa mel lu am arrière goût waaye en tant que nante si nante maam dafa jël ceeb bi xamal ko ba mu xam. yaa may dégg. Hmm. d'accord man lay dégg boo desee defoon ay garab dafa jël ah. ma ne boobu da si defoon ay garab. nga ni. ma ne boobu ceeb bi da si defoon ay garab. waa ceeb bi da defoon ay garab waaye bu ko xamalul ba mu xam rek du dem waaye en tant que nante maam ak intelligent am dafa xamal ceeb bi ba ceeb bi xaw a xëm mu jaxase ko fooñ yi léegi nag après yooyu yëpp day dikkaat suma xel. léegi moom affaire yu ñaareel bi daal moo taxoon mu jógal la di lay liggéey ak def la lii yëpp. non du ñaareel bi sax loolu sax taxul ndax man booba man xamul si kan laay dugg wala waxaguma ko dara ndax respecté naa ko façon respecté ba nga xam ni tey si lu ma nekk lu nekk ak si sutura lay doon waaye du loo xam ne jigéen da ngay ñëw ko wax mhm. yenn yi par exemple ñu kaf tooñ mën a ko ah, fii si war nga yokk say bagage ndax xam nga temps bi mooy loolu affaire yooyu di ko tooñ noonu waaye loolu pour tooñ la nii rek déconné loolu lu ko waral tamit lu gën mu yokk ay bagage tamit si tukki si la bokkoon ndax dama ko bëggoon indi si Europe bi ba régleel ko ay papier mag lépp léppam ba xam ne fi ñu toll nii passeport am rek moo desoon far yàlla dogal ma waxtaan ci mhm. suma papa bu ma si waxtaanee ak suma papa suma papa na ma parent saa may gis ngeen ni am détail quoi ndegam da ngeen am da ngeen di am ay détail te yàlla dogal na ni amagoo leen bant te jigéen boo leen amul bant nii rek day xaw a difficile bu yàlla dogalee ba ngeen dem ba am sax mën naa am nga téye ko quoi. waaw gis naa ni ni muy doxee tamit xam naa ni mel na ni jéegu kaña la quoi jéegu kaña mooy kuy buub di yóbbu daal waaw ak jéegu kaani quoi ka nga xam ni tey xam nga day rafet si biti ni wex si biir day tar da lay tegal lu xaat ndax instant boobu waajaa ngi si ginnaaw Mohamed Gueye boobu di ko gonflé xale bi actuellement dem na ba mujj gi gain amul rusukaay amul kersa teg sañ-sañ dama yow doo takk mm-hmm. kenn si àdduna yow si man ngay dee bu nekkee waxuma loolu yàlla bu ma jariñu billahi wallahi taalaahi yow si man ngay dee yow pour man nga maa ngi xool ba mu neex ma nu ma neex ma def la ko ma ne ko <laughs> sëy day naturel waaw waaye dafa mel ne rek sarax ndonga njaay baa mu tibb ak dooleem quoi moom loolu la gëmoon ndax instant bi dafa mel ni mbër mu entraîné wu rek ñu ne ko demal gaañ lappataakee ngi dóoral da ngay daan quoi moom léppam si sëriñ la ko tegoon ndax waajaa ngi ci ginnaaw di ko puus mm-hmm. yaa may dégg. te maa lay dégg. yàlla dogal nag bu mu demee noonu sama papa na ma léegi da ngay bàyyi ba si kanam nga yóbbu sa nga yóbbu ko bàyyi ba mu am doom ba sa rakk yi tamit takk jabar ndax ñu ne ay mag lan waaye nag lu ma sauvé rek mooy kilifa. Mhm. kilifa muy importante baax nag trop déglu say kilifa déglu say parents waaye su ma yaay moom raxas na ko bu yàgg ndax su ma yaay dëddale leen bu ma ko gisee dafay mel ni su ma butit yi ma gis. kan moo la massa massa góora bul jooy massa massa massa góora bul yàq émission bul jooy massa massa massa góora Massa bul yàq émission bi suñu soxal la ñu jéem ko yeggali ndànk-ndànk. allo ndax ndax benn affaire moo mooy suma yaay. Mhm. bu ma masaan ñëw vacances suma yaay dafa daj lu nekk. dafa daj lu nekk. bu ma demee ba si yàgg bu ma masaan ñëw vacances ak lu mu metti yi damay tëj suma nekk. paren sama toog su ma néeg mu ngeeg télé waaye damay tëj su ma néeg na kaañ dem néegu maire bi dem néegu maire bi toog fa lu mat mhm. trois toog fa lu mat deux heures de temps waxtaan kaf ak su may rakk ndax mhm. su may rakk fa laa leen fekk toog ak rakk ñu kaf fooree wax ñu ree ndax xam nga man seen grand kaf ak affaire yooyu quoi mhm. waaye bu demee ba si yàgg mu dëddale ma ak bi yàlla dogal bu dëddale ma ak bi maire bi dem na ba jógatul la xam ne da ko doon wut sa mu ay ñaan wala yeneen ak yeneen dem na ba si yàgg maire bi defatu ko ma dem suma benn tons hmm. grand bi di wax ko na ko tons mu ne ma ah ma ne ko maire bi daal dama gis ni actuellement dafa mel ni amatuma yaay quoi ndax suma yaay vraiment jàppatu si hmm. jéem a defatul dara suma yaay def mel ni ko découragé wu si man xaw ma lu xew xaw ma lan hmm. fekk maire bi tamit même noonu la fa demee moom tamit nee ma si xolam bu affaire yi demee ba toj sa nee ma man bu ma jullee woon du la woon ñaanal mu gi ndax dem naa ba mel ni dama mel ni juróotuma la maa ngi koy wax sa rak maa ngi naan maam jaara mu ne ah, ma ko man góor a daf ma jaaxal ba muy xale ku ma bëggoon la te tàngal sa mhm. bu ko masaan am ñëw na ma tàngal baa ngi nii te dama gis ni moom moom ñoom ñaar léegi dama gis ni daal vraiment dafa changé si man yéen a ngi doon déggante waaye di waxtaan kan suma yaay. waaw. waaw suma yaay saa ba non ñu ngi doon déggante di waxtaan waaye loolu yëpp bu ma ñëwee ba Sénégal lay am dañuy bu ma nekkee Europe dañuy waxtaan dañuy def lépp dañuy juboo day mel ni ku may waaye bu ma ñëwee senegal ñëw naa senegal benn jour barke Serigne Touba na ko maire mu mhm. ne kat aju. sam papa na ma an waa Europe yéen a ngi si jàmm waa lépp ñu si dafa mel ni ku ma bëggul gis man tamit mel ni bëgguma ko gis. ndeysaan maire bi mel na ni bëgguma gis man tey mel na ni bëgguma ko gis te bu nekkee Europe dañuy déggoo maag moom dañuy waxtaan maire nii waaye bu nekkee Sénégal comme xaj ak muus damay toog su ma nekk sax téye su ma bopp ba trois jours day ñëw na ma lan moo tax doo ma nuyu si ma romb ko ne vif man daal bul comprendre quoi man comprendre maire bi mujj xam nga ma wax ko suma tons jooytu ko ko wax ko suma beneen copain bu nekk si ñu naan ko Assane ma wax ko Assane ndeysaan Mm-hmm. Assane reetaan mm-hmm. na ma nag booba mën ta wax dara sama diggante ak maire bi ndax luy problème bi mooy xalaatul soxna si ndax xale bi xalaatul ko booba booy bi xale bi tut la bu ma koy takk âge de seize dix-sept ans la am d'accord dix-sept ans la am bu ñu jógee dëkk ba presque ñëw fa âge de douze ans def fa presque am def fa non bu mu fay ñëw presque quatorze ans def fa trois ans waaw def fa trois mm-hmm. ans bu dix-sept ans après man bu ma ñëwee noonu xam nga plané nii dugg génn maire bi na ma ah non paa bi na ma non booy bi yaru na baax na affaire yooyu mën na ko papa daal man daal xam nga rek bàyyil ma dugg si te wàcc si bi affaire yooyu maire bi paa bi na ma non yow lan nga bëgg nii xanaa la nga bëgg booy sol jiin wala dangal wala affaire yooyu kii xale bi baax na te jàpp na njaamuram téye na boppam si kër gi affaire yooy te waa kër gi nan ko quoi xam nga mën mm-hmm. a amul mm-hmm. problème léegi nag après maa ngi jërëgu quoi après bu may yëragum noonu après paa bi ñu après paa bi na ma koo fi man indi tamit dafa indi mhm. jàmm pare waa paa bi paa bi dafa mel ni di menacé quoi ndax bu mhm. ne koo fi indi rek na fi indi jàmm mel na ni moom di tëkk quoi man daal gis naa ni fii bu ma fi indee fii daal xam naa duñ ko may jàmm daal bu ma gisee mhm. nii ndax dan da instant boobu bala ngay dàq loolu mu dem si àll ba nga dàq ci si biir kër gi quoi te du question man lañ yéene sa booy bi lañ yéene ndax instant boobu say parents ñoo la ko si dugal ah ma kon say parents ñoom ñoo lee dugal si moom pour nga jël ko soxna. waaw paa bi daf ma waxoon rek bu mu ko xamee woon na ma jàppoon na njaamur tax innocent la affaire farantu nekkul si bopp bi ndax daf ma expliqué na ma yeneen booy te gis naa ñuy cëf-cëf di dal waaye xale bi gis naa ne affaire farantu sa mhm. nekkul si bopp bi ma ñëw après si laa tudd mhm. noonu bu ma tëddee bu ma tëddee toog ba yenn heure yi après sunu borom feeñu ma borom bi bu ma feeñoo na ma góor a mën a ah, mun a ma yàlla bëgg na ko yonent bi bëgg na ko sëriñ Tuubaa bëgg na ko ma ñëw na suma yaay mu ne ma ah ma ko dama soxla xale bu jigéen dama soxla numéro yaay suma yaay na ma non dugalu ma la si de man dama xam xale yi léegi boo lëggee lu xew nga ne maa la sama yaay dafa nag dugalu ma si xoolal ba mu neex la maanaam bu na ma ah ma ne ko bëgg naa ñu waxtaan ak ndijaayam ndijaayam suma mag la ñu waxtaan par déggoo yàlla dogal ñu déggoo ma takk ko bu ma ko takkee presque 2013 2014 2015 2016 après nag 2016 la lépp cambiaar ndax échange boobu man dama jàppee ni rek xale la di ko muñal dawal compréhension xam nga lu mu mënti def tamit ma géré mm-hmm. waaye bu ma dee si yàgg dama gis bu mu mm-hmm. duggee si waajooju Mouhamed Gebram kànnaar boobu waajooju bu mu si duggee rek la mm-hmm. commencé soppeeku si àdduna te te ay affaire sëriñ ci moo taxoon mu dugg duggalanteeg moom wala dañoo gisante rek bëggante affaire sëriñ ci si leen xamante jour bu di njëkk di dem bu ànd ak suma doom baay bu naan Oumy Sarr bu mu fay demaat ànd ak suma benn rakk bu fay demaat ma dugg si gàmbooru sa ndax histoire la boo xam ni dafa xaw a gudd booy bi nee na bu fay demaat moom seul moo fa dem bu mu fa demee mu am lu mu ko wax bu mu amee lu mu ko wax bu ne ko loolu sobe la bëgga booy bi ne ko man du ma tëdd ngir loolu mu yëkkati ay saafara garab bu mu ko defal sobe la bëgg. waaw mu ne ko lu nga bëgg gàllaaj bi nga bëgg pour ma defaral la ko sobe la bëgg booy bi ne ko non man loolu du ko def si waxam si waxam buuru mu waxam def na ko wala defu. Mhm. yaa may dégg. ma lay dégg góor. léegi yàlla dogal bu ko waxee loolu nee na defu ko après si la ñëwaatee bu mu ñëwaat après nag affaire bi dikkee ko après mu jox ko garab na ko sangool. nee na bu mu jëkkee garab bi sangoo ko après mu mel ni dañ ko xiirtal si moom mu reetaat bu mu ñëwaatee te dafa guddi mu mel ni ko tëj tijji bunt bi dugg allo mm-hmm. yaa ngi dégg dégg mu li nga mujjee ba mu ñëwaatee bu mu ñëwaatee nee na bu mu ñëwaatee mu yëkkati ay garab jox ko ko bu mu ko joxee mm-hmm. garab yi bu mu ko sangoo ba pare nee na mu mel ni ku ko jandeer mel ni ku mm-hmm. koy génn tëddee ko ci la yuuxoo naan ko Mouhamed Gueye bàyyi ma Mouhamed Gueye bàyyi ma man naam nag mm-hmm. daf ko daf ko def bu mu ko defee loolu des ci bopp bi mu tiit wax ko suma benn rakk bu jigéen bu ko waxee suma benn rakk bu jigéen suma rakk bu jigéen bi na ko wax ko sa jëkkër wax ko sa jëkkër ni dafa am sëriñ boo demoon waaye ñimewu ma ko wax mu junjuma mm-hmm. bu ma wooy waxuma sëriñ waaye mas na ma junj na ma man de dama am dafa am koo xam ni par exemple bu ma ñëwee day tëdd polanteer bi xaw ma fum mu féete da xam nga day mel lu ñëw xoj ma wala def dara ba ma yuuxu affaire yooyu ma ne ko non bala ngay tëdd nga def say léemoo yenn affaire yi rek moom moo gën quoi mm-hmm. booy bi na waa amul problème affaire yooyu léegi hmm. bu ñu demaatee dem ba si yàgg mu koy jox ay après bu mu fa jógee nee ci si la demaat bu mu demaatee mu tëddee. Hmm. d'accord. bu mu ko tëddaatee ne ko soxna si baal ma après woo ko mu daw Gàmbi Mouhamed Gueye borom kànnaar bi. daa daw. si la tawee dem Gàmbi. mais sox sa soxna moom si coobareem la wala da ko wala ba muy tëdd ak moom àndul ak sagoom non àndul ak si lu mu wax si lu mu wax waaye mujj gi ànd na ak sagoom ndax dafa dem ba si yàgg lenn li nag sëriñ bi si amee tamit lenn li xam naa ni dem ba si yàgg rek am confiance wala dem ba si yàgg bu sëgg si ndax waa jooju dëgër na fit ñi mel yàlla te borom xam-xam dëgër fit la te ñi mel yàlla na yàlla trop trop trop trop trop trop dama ne woon sax du ma si wax dama ne woon du ma si wax si affaire de média wala yenn affaire yi sax dama waxoon dem ba si yàgg na du ma si wax ndax numéro Aba jox nan ma ko jox ma numéro Sa Ndiogou jox ma numéro euh, Maguette Pape Maguette Ba jox nan ma numéro mhm. waaye ndegam yow da nga fi nekkal askan wi te vraiment nekk nga xam ne tamit macha allah sa liggéey rafet. Mhm. maanaam nag keroog bu ma gisee man a ah, lu ma mën def defa ak yow émission di la sant tamit la gërëm wax dëgg yàlla comme ni ma ko yombalee nii jërëjëf ba jël sama risque léegi mhm. Mhm. ndeysaan léegi moom sa soxna jotu wax euh, ñaata yoon la ko bërëm karnaar moomu tëddee non après après bu mu de bu mu bu mu bu mu demaatee ba si yàgg après ñoom dañu dem ba seq business te business boobu Cheikh yëpp ci man la quoi. jabaram xam ko jabaram man genre business. business Serigne Touba Serigne mhm. Touba bu ma lay wax rek mooy instant boobu pass nee ko ni nga tukki da ngay tukki ci nii wala nga tukki ci naa te gaañ bi du takk ñaareel ba keroog muy dee. booy bi wax ma ko jaxaran na ma billaahi wallaahi taalaahi. bu nekkee lii ma lay wax amul yàlla na jullit yëpp dee dem àjjana ma dee dem safara lii ma lay wax yàllaa ma tiim lii la ma ko waxee wax ko suma ma rakk bu jigéen su ma rakk bu jigéen tiit na ko looy wax ci ndax wóolu na boppam ndax waajaa ngi koy deey dem na bay xëccoog man suma mm-hmm. doom dama sama doom bu kiyee dama koy yóbbu daa ma ne ko non xale bu ndaw dama koy dugal fii école dem ba si yàgg dugal ko daa ndànk-ndànk mu imposé ma ndax la waaji di sol si bopp ñaata doom ngeen am. benn bant la ñu am. moom te du moom soxna si actuellement dafa ëmb. waaye instant bi nii dafa ëmba dem village te Mouhamed Gueye moo ko ëmbal te Mati waxtaan naa jabar ji Mati. borom kan ndax euh, bu mhm. action bi amee mooy comme lu ma la wax rek bu action bi amee dafa yónnee ay moto càq-càq. gaa yi ñëw si lu xale bu jigéen bi wax gaa yi ñëw bëgg a yàq. moom nag nangul feeñ xale bi na ma risque bi bu ma ko defee bu ma si deewee te moom si feeñ trace boobu nante la en tant que nante la bëgg na woote wax ak gars yi gars yi kii te moom woote direct pour wax ak booy bi direct bu si booy bi deewee moom du am trace ma woote wu audio deful dara du la ay éléments yu mu mhm. woo jaxaran face to face taxaw ak ñoom na leen dem leen ngeen jël seen waaw wut leen inspecteur ngeen dem far dem fële fekk ji booy bi booy bi nee moom lu tax nangu la feeñ ci laa xam ne bu ma si dee damay niil léegi lii yëpp yow sa soxna moo la ko nettali hmm? ah lii yëpp sa soxna si moo la ko nettali billaahi wallaahi taalaahi moo ma ko nettali barke sëriñ Tuubaa Mbàkke ndax dama ko nax na ko boo ma waxee dëgg gi nga toog ci kër gi mu wax ma trace bépp ndax Mouhamed mu ne ko takkal say bagage dem village moo tax woon mu cokkaas ma si biir wax maa nga la koy wax takk ay bagage am bële fa dem village léegi bu mu ñëwee toog si kër gi su ma yaay gérer manul gérer su ma yaay na ko te fekk instant boobu su ma yaay ak ma woo su ma yaay bu ma wooyee na ma da nga ñëw hmm. def fi benn quinze jours wala benn vingt jours suturaal ñu waxtaan loolu Mouhamed dox si maayen bi na ko déedéet da nga war a dem dëkk ba ndax xale bi bu juddoo si condition yu baax lay nekk mu xam ne maire bi xatal na ko su may rakk xatal nan ko waa kër gi daanaka xaw nañ ko xatal mun a moom du ma perte bu ma naree perte ba nar maa perte day dem jëli ji lee Mouhamed yónni benn copain bu naan maa sàmba maa sàmba ñëw hmm. gisanteeg maam jaara gisanteeg yaay ji gisanteeg moom booy bi dem nekk hmm. benn genre innocent hmm. maa sàmba ñëw waxtaa wax ak wax sëñ bi na leen sëñ baa ngi Gàmbi waaye ndegam yàlla dafa dogal mu siiw Sénégal mu siiw Sénégal am na lu muy demee li mhm. bëggul média yi jot si nan ko lijjanti suñu biir mhm. Massamba da suma rakk bi mhm. yow xam nga ko bu baax mu ne ko ah, maa fi amoon problème ak booy waali yaa ngi may dégg ma lay dégg wa su la suma rakk bi jël si la Massamba bu muy présenté wu dafa présenté wu na ko man Angleterre la nekk xamante nañ dix ans quinze ans su may doom ak lépp moo leen di faj baax laa ko xamee ni erreur la rek yàlla dogal na ni bu ñu si bu ñu seex ak moom xam na ne amul jëkkër ñëw na def ko lu mu koy def ndogal tudd si nan ko lijjanti suñu biir nan ko lijjanti suñu biir mm-hmm. si njekk ak trang ko gën siiw mana mm-hmm. maam jaara mm-hmm. bu ma ah ma ne ko nag ñëw na fekk leen sokaa beek jàpp ni yéen ay ngaaka ngeen dëkkoo leen ci dëkk bi dëkkoo leen ci bi ba tax mu naan la dafa siiw ba bëggul média jot si wala dara ndax moom yàlla ragalul ragalul yàlla doomu aadama yi la ragal te moom gënuma siiw ndax ma gën a nekk doomu ndakaaru gënuma siiw gënuma siiw mm-hmm. Mm-hmm. man a amul problème ah jaara enregistré lépp maa ngeeg audio yëpp parce que Serigne Touba Mbacke audio yëpp a ngi fii fu muy waxee sëñ bi naan naan ko enragé jàppal bàyyi lépp naan ko ñaata yoon benn yoon booy bu ñëwee si kër gi laa ko use na ko fiis pour ma bàyyi la si kër gi danga may wax dëgg su ma na ma léegi li muy mooy na toog wax la wax la dëgg ma wax ak suma papa na ko ah daf na benn yoon la suma mhm. papa na ma wóoru ma si ah li la wax ma dégg si waxu suma papa xam ne waxu mag la wax ma bàyyi lépp sedd maire bi bu ñu ñëwee mhm. booy bi si boppam xëy suba teel bu mu xëyee takk bagage yi dem bu mu takkee bagage yi dem ba dem jëli ji après ma woowaat ko nax ko na ko ñëwal sam benn paa defal lay sangat ndax xam naa ne mbir mi gàllaaj la affaire de sëriñ tu la nangam sangam ma waxtaan ak su mhm. ma yenn su ma yenn paa na ma da ngay topp action mhm. léegi bu mu ko naxaatee ba ñëw sama paa dina ma woo ma ne ko waa léegi amul problème léegi nan xaar ba lijjanti ko si pet léegi ñu dem moo yaayam ak suma rakk dem kër jabar dem kër jabar ji buñ demee fu ñu dëkkoon fekk foofu ñu tuxu fa mhm. buñ fa tuxoo mhm. ñu ne inte neuf xaw ma onze dëkk xaw ma côté boobu léegi buñ demee ñu ne mhm. tuxu nan mooy bi ne tuxu nan man te mën a ko xam naa ni de benn sëriñ bi fa ñëwoon la rek ab bu fa benn néeg rek exploité lu muy exploité profito dem ñu fekk fa benn sëriñ sëriñ bi ne kooku de ñoom ñaar fekkantewuñ fa sax ñu waxtaan ak benn hmm. ñëw si benn gel foofu bu ñëwee kër gu mu jàkkaar la ñu wax ak hmm. benn gel gel bi na leen soxna si ba jàmm la lan moo xew mu ne ko non non dara xewul jàmm rek ñu dem foofu wëri wër xamul kër gi léegi si la ñëwaat na ko soxna si dañ lay wax dëgg rek te yàlla tax kii suñu jabaru mag la kii na man maay yaayam yàlla dafa dogal jëkkëram nekk Europe Mouhamed Gueye borom kànnaar bi def ko jëf ju bon ji ndaw si na wuy samantay laa ilaha illallah lii de ku ko def suma rakk sax ma jóg ndax ku ko def suma rakk boo bokkal ndey ak sama jóg te dama jàpp ni comme kii ñoo bokk ndey ak jabaram dafay mhm. jaay si dafa nekk si interface bi di doon na def ay publicité numéro am falaa ko capturé mhm. woon waaye maag jabar ji si seq ñu raayet maag ñoom maag moom amuñu wax léegi mhm. naaw léegi nu muy demee naa jël numéro bi jox leen ko si pet waaye boo leen demee bu leen ko feeñu léegi mu jox leen numéro bi bu nu demee booy bi dem kër ga bu nu demee kër ga booy bi sëgg booy bi bu ñu sëggee hmm. ñu waxtaan ak mat jaara na ko ñun de leen soxla woon sëñ bi nangam sangam kër ci kër ci waxtaan ak moom mu yëkkati après mu ne ko amul benn problème bu ñëwee rek incha allah naa leen woo sëñ bi. Hmm. woo boo woo suma jabar bu suma jabar waxtaan ak moom na ko hmm. yow lan moo tax ngay am droit di dem suma kër. bay gis suma jabar mu ne ko dama fay dem yaa ngi dégg mm-hmm. après ma ma sàmb moomu noonu ngay gis mu woo mu woo booy bu mu mm-hmm. woo xale bi na ko yow sa jëkkër ku tàng la ku tàng la wala ku sedd la wala ku koo la wala ku nite la booy bi na ko non sama jëkkër benn genre la boo xam ne ku intelligent la macha allah. Mm-hmm. booy wax da lay dégg te am na dal tamit am na dal te booy wax da lay déglu mu ne ko jaara lan la si mm-hmm. mu ne ko jaara rek am la rek mu ne ko moom affaire yi da si yokk yéegal sa caméra bi mm-hmm. hmm? mu ne nga yéegal sa hmm? caméra bi waaw mu ne ko da ciy yokk kaani waaw moom day defar wala day yàqu mu ne mm-hmm. ko noo jaara yàqu jaara dafay defar jaara dem benn gerte ma woo mhm. jaara na ko jaara bu ne ma ah ma ne ko génn si nga ba ma ak maa samba sax bu la woowatee ne ko man duma si dara maa samba naan ko non dama mhm. bëgg dama la bëgg a kii da nga ma neex da nga ma kërti kërti léegi booy bi si boppam du si na dara léegi génn si léegi booy euh, Mouhamed Gueye bu soxna si menacé ko ne ko la moo tax kay dem suma gaal ne bay gisanteeg suma soxna bay am mhm. looy wax ak moom ba nga delluwaat fa ndax mhm. booy tamit kalu fu mu kalu léegi bu mu kaloo fu mu kalu man ma toog ba si yàgg ma ma ma bë ma tey ma fuur ma fuuree si laa woo ma bu ma woowee soxnaam mhm. te mu dëkk mhm. ñuy waxtaan ma ne ko man la jëkkëru diw mu ne ma diw moomu de bu mu fi ñëwee bañ na ko ba dafa sëgg muur kanam gi ndax man war na dama ko doon dama xam naa ko bu ma juumul mm-hmm. bu si gisoon ma xam dégg nga maa lay dégg waaw mu ne ko bu siggi woon waaw mu ne ko diw moomu bu siggi woon sama xam ko bu siggi woon mm-hmm. dama koy xam tey mm-hmm. après mati na ma mati na ma moom ñëw na suma ngénte ndax benn jour maa ngi gis mu woo sëñ bi si laa woowee waa sama jëkkër na ko waa kii loolu lañ seq mu ne ko kii suma xarit la mu ne ko kii de dama gis ni dafa nekk xale te xale sëriñ benn jour nee na mu waxtaan ak moom bu waxtaan moom na ko yow xale nga mu ne ko waaw mu ne ko damaa gis ni suma jëkkër dafa dangereux te suma jëkkër dafa garaaw suma jëkkër jënd naa déplacé wu ñëw fekk mu fat fi jeeg kon defal attention bu baax a baax barke xam Mohamed bu nekkee amul yan na jullit yëpp dee dem aljana ma dee dem safara yàlla bu ma jariñ si yoonu Sëriñ Tuuba dara jaralu ma fet audio yaa ngi fi audio yëpp a ngi fii audio léegi ba ko jóg soxna borom karnaar waxee loolu moom taxul woon mu deltu gannaaw non moom dafa dafa wax loolu bu mu waxee loolu bu ne ma yow la ñu waxtaan ma ne ko fii dëkk bu ne ma maa ngi dëkk ci mhm. fan mu ne ma maa ngi dëkk wetu kër Mamar jaay ma ne ko Mamar Ndiaye moomu de taawam bu daan aat su ma su ma ko mhm. yaroo parcelle ba mu naan ma mhm. xam nga Miss ma ne ko xam naa Miss Ndiaye jabaru Aziz Ndiaye xam naa ko bu baax mama tamu gaañ dem si yàlla seen kër la doon dem vacances ba si Awa ak Adam ba mu na ma yaay Miss Ndiaye de mhm. nelaw na ma ne ko ay waay ndax maamam bu mu nelawee mère Cissé jour boobu ñoom ñëpp a fa ñëw ay ñoom Doudou ñoom ñaa xarañ gaay fa dikk instant mm. boobu ak ñoom Gris Bordeaux ak ñoom Aziz Ndiaye maire ale maa ngi ñëw sax mu fekk mm-hmm. ma fa vacances day jël si dem yëg si kaw étage bi wàcc affaire yeeg ceeb yeeg génn maa ba si suufu kër googu maa dugaloon ñoom Gris seen plate seen boolu yàpp maa ko mm-hmm. dugal ba gars naan ma noo gaynde man daal lii def ma jaaxal quoi moodu moodu bu ñëw mel ni si dëkk bi ma ne leen àdduna amul solo àdduna du dara ñu hmm. waxtaan mu ne ma koñ boobu la hmm. dëkk ma ne ko ah kon xamante ngaa jooju ma ne ko ndeysaan gis nga àdduna su ma mbokk nga ba may expliqué na ma léegi hmm. am na après mu expliqué ma sax dama ab ah après doguma la mu expliqué ma ne ma benn magam bu nekk Espagne fii di fi sëy ñu naan ko Yacine ma ne ko Yacine boobu noonu kat mooy jëkkër ji mu ne ma Pape Demba ma ne ko 2008 laa xam Pape Demba Pape Demba tamu dëkk Colobane 2008 dama wax si audio bu mujj gi. Mhm. ndeysaan si yaram ñun ñëpp mu daw. yaa si sama doom ji bu juddoo na ko fi indi. ma yor toppatoo ko comme waaw mati na ma bu doom ji juddoo nga indi ko ma yor ko kon nun ko war a yoree. ma ne ko lan mooy tax loolu mati na ma non sunu papa sunu yaay bu ñu defoon loolu mar day taali ëllëg si doom ji mën na màgg doomam Mouhamed Bassir suma doom ji ma am mu def deux ans ak moom. ma def ak moom deux ans sama doom parce que si ay trois deux ans quelque lay toll léegi bu demee ba xamante ne doomam boobu mu nekk jigéen mu takk ko nag lu muy mel mbati ma defaral ko ay audio yu extraordinaire jox ko audio yëpp ne ko bu ñëwee tegal ko preuve yu leer maa sàmba ba muy wax mu ngi nii safoor bi bu muy wax mu ngi nii magam bu nekk Kaolack magam bu nekk Gambie te mu nekk douanier bu muy wax mu ngi nii safoor bi na ma moom magum jëmmal la wax naa ko mu bañ na du ma si wax man aw ma droit du ma si wax dara aw ma lu ma siy wax ma ne ko ah, amul problème mm-hmm. après bu mu jugee xale bi xale bi na ma noo doom ji nee na bu juddoo si condition yi la koy teg ma xolu ci laa jàlloo man am problème ma xolu na ko na mati mu na ma ah ma ne ko bis dama bëggoon bàyyi leen mi traité waaye bis bu ko nangoo sax ma tëj ko. bis bu nangoo mm-hmm. doom ji ma tëj lu ko ndax booba xale bi mu ngi jàpp ni wax na ma ko neexlew ma si kër gi sa mère xatal na ma mm-hmm. commencé ma neexle si kër gi jàmm na ma si kër gi moom nee na doom ji da ko yor si condition ma ne ko yow da nga dofoo la lan yow jëkkër nga am doom ji man maa ko jur doom ji sama buum la juddoo bu la doom si condition yu baax la koy teg amul lu mu fiy doom ji moom leer na ni ne sa doom la ah doom ji leer na li ne sa doom la ku ngeen jot a am. kan. ma ne ku ngeen jot am leer na li ne sa doom la. ndax kooku moom kooku moom macha allah suma <laughs> bañ na xam duma dugal photo am sax ndax ndeysaan année boobu dafa fekk ma tombeek mhm. Sénégal ma ñëw def fa six mois jóge Sénégal. Mhm. def fa six mois. jóge Sénégal ñëw Espagne mhm. defaat fi deux mois ñëwaat Sénégal def fa cinq mois quinze jours. loolu moom wax dëgg yàlla wut naa si mm. ñaan te fii yàlla baax na daal loolu moom ndax ndax benn jour dañu xuloo bu ñu xuloo mu expliqué ma loolu dañu xuloo mu ne ma billaahi wallaahi bu fekk woon sa doom ji ma ëmb duma fi teg suma tànk te maa ngi Sénégal xaaju mm. fëgg na sa bu ma ko ëmbuloon du ma fi tee suma du ma fi teg suma tànk tas naa dem naa yow lan la lu xew xabtalu suma taw ndax daf ko xabtal mm. suma kaw sax dafa dem ba di ko di ko wax di ko jaxas jaxaseeg man Mouhamed Gueye dem ba si yàgg di ko xabtal suma kaw. léegi sa soxna actuellement nee nga ma mu ngi village danga ko may baat wala lan wala tàggoowu leen. instant boobu ma ñëw sa instant boobu mu xaacoo sa carrément xaatu xam rek jëfu jigéen affaire yooyu waaye man dama dem ba si yàgg rek. ma comprendre daal comprendre ni kii daal vraiment instant boobu noonu sax am na yu mu def yoo xam ne man mënuma ko expliquer ndax bu muy nekk ci digg sëriñ bi dëgg sa naa denc ma un million mu daw jël ci pareen saa damay jël un million rek yóbbu pareen saa ma jël un million yóbbu pareen saa mu jël si ba benn jour ma yëkkati sëram fekk fa mu jël fa xaalis denc fa ma ne ko yow lay jël suma xaalis yow ban problème nga am waaye instant boobu tamit taxul ma wax suma mère jàppante na si mère bi ñëw ma ne ko sàncal film ndax tamit en tant jigéen jigéen booy sëy moom rek sutura la àdduna lépp sutura la. sutura jigéen dañ koy mm-hmm. suturaal. jigéen lu xew rek. Mm-hmm. sa famille nga wax leen ni nangam nangam lan jotee dañ koy xoolee bët boobu. dañ koy xoolee même bët boobu dañ koy xoolee bëtu ni yéen ñaar yéen a ngi am problème sax loolu gàcce la loolu. dëgg la dëgg la góora léegi. dëgg la léegi avant ñu lay bay parce que waxtu wi mu ngi bëgg kii dab euh, ba xam ndax actuellement da nga ko may baatam am déet. non man instant boobu non may may baatam si si ndax instant boobu suma rakk bi mu ngi may expliqué suma rakk bi may expliqué na ma woo naa ah, ndax dafa dem suma kër mag suma mag bi na ah bu fekkee ni erreur la amul problème suma mag bi suma rakk bi na ko non non lii du erreur ndax bu may nettali que diiran que léegi man naa am yàgg na si nekk kon loo si jéem lu nekk rek après mhm. defet la waaw boobaa da ngay rus quoi lii défaite la ndax xam naa ni ñoom ñaar yàgg nañ jëflante te xam nga liy def mun a aaw. Mhm. su ma mag bu jigéen bi ma waxoon su ma mag bu jigéen bi ne ma may ko baatam mu dem kii du yoon pour nga koy teete en tant que gentleman seeti leneen nga bàyyi ko bu ma ko may naa la sa baat dafa tiit ndax ko ndax daf ko assuré la woon ni loo ko teg mu tegoo ko te loo may baat dañ ko déey. loolu la ko karnaar gëmloo yàlla bu ko weer boo boobu yàlla ko weer. yàlla boo ko weer ndax yàlla ana seen doom ji ah ana seen doom ji non suma yaay mu ngi ko téye ah, suma yaay ko téye waaw yóbbu ko suma yaay ko téye ndax ndax daf ko bëggoon a yóbbu ndax instant boobu bu ñu ko bëggee yóbbu chaque quinze jours mu laaj ma kuus mhm. chaque quinze jours mu laaj ma kuus quinze mille francs ndax nee ma paquet bi douze mille lay jar chaque quinze jours mu laaj ma kuus quinze mille francs ma yëkkati quinze mille jox ko mu ne ma paquet bi jeex na benn jour benn jël na ma yow kuus ñaata ngay jënd ma ne ko man daal chaque quinze jours ma joxe kuus mu ne ma yow lay wax ni waxu dof mana ko waa kuus yi mu ne ma noo kuus yi kuus jaara laa si may sa rakk bi ma ne ko jaara man laaj man bu ma dee ba affaire yi xew ma laaj jaara jaara na ma waxul dëgg ma su ma may kuus man maa koy may kuus xaalisu serelek bi ma ko ko joxe su ma yaay na su ma mag su ma rakk na ma ma su ma gis mu jëndal ko serelek su ma rakk na ma su ma gis mu jëndal ko toppatoo xale bi non xale bi di ko toppatoo xale bi dafa dem ba ci yàgg mu bëgg ko ray rayu pet billaahi wallaahi taalaahi bu ma ko woowee mu bëgg a rey benn doom boobu ngeen am barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke mu bëgg ko ray rayu secret ah. billaahi wallaahi taalaahi mu bëgg ko ray rayu secret saa su ma ko woowee ma gis xale bi songu ween bi ndax daf la góor a lii moo ñu boole dëggam góor a doom ji moo nu boole naa ko raxas <laughs> naa raxas doom ji préparé wu bu muy préparé wu maa ngi ko yónnee sans bu muy bu wu pour dem instant boobu avant bu affaire yi claté fekk moom waxaguma te affaire yi claté na maa ngi ko yónnee cent cinquante mille pour mu jëri ci passeport am ndax dugal naa kayitam fii jour boobu Bakary Mbuub Bakary mooma woo Bakary ante Njéeme bu waali di wooy copain ñoom waali mooma woo na ma góo sa jabar dem na fa Diouf moo ko jox passeport bi cent vingt cinq mille la ko jox te jour boobu moom sama jabar nee na ma jour boobu ñoom ñaar moo taal otoom yóbbu ko ñu ànd bu jëli ji passeport bi na ko demal li jël Mouhamed Gueye billaahi wallaahi taalaahi moo ko sama ja wax na lépp su ma jabar ak audio fi lépp la wax nee na jour boobu Mouhamed Gueye moo taal otoom yóbbu ko ndax ko maa ngi faak ay booy nekk bureau de passeport nan dem ñu jën ko complice la ñu yónnee naa ko appareil quelque temps appareil bi réer na barke Serigne Touba taj réeru xam naa da ko jaay. doy na wa doy léegi góora yaa may dégg allo. donc euh, mi ngi noonu ami internet Dakar Buzz rawatina diaspora bi nga xamante ne nii ñoom moom bi la émission di bitim réew euh, ki nga xamante ne ñu ngi doon waxtaan ak moom tey di Gora Ndiaye euh, gis nga waxtaan ba foofu la daggee problème mu connexion way la téléphone mu ngi may signalé ni dafa fay ñu leen koy yemaleel fii tey waaye mu doon mbir mu doy waar ah, infidélité ak maraboutage vraiment métti na gis nañ wax na ba tuur ay rongoñ jooy jooy yu métti ngir rek surtout waajur ak doom ñu mel ñu déddale ko ak waajuram bu jigéen surtout doon na lu ko gën a métti rawatina euh, sëriñ ba muy na ëmbal soxnaam teg yooyu yëpp mu boole ñu liggéey ko euh, si ay yu kenn xamul mu nekk ci ay tolof tolof lépp di doon mbir mu doy waar ah, en métti li nga xamante ne ni dund na ko euh, nekk bitim réew foofu côté Moodu Moodu yi jël soxna bàyyi Sénégal ñu ñëw def la yenn yi vraiment ku ne xam ne neexul si xol ku mu dal sa ku ko natt si sa bopp rek da nga xam nu mu mel vraiment doon lu métti lool ma koy mastaw bu baax a baax moom góora bu baax baax di ko mastaw ne ko rek euh, mu euh, gëm yàlla aussi te rek euh, gën a góorgóorlu ndaxte li ni mel da lay motiver nga gën a xam aussi fi ngay teg say tànk vraiment maa ngi koy mastaw bu baax a baax ndax ku ne boo ko nattee sa bopp rek xam ne lu muy dund jamono ji métti na bitim réew dafa métti chaque fois dama koy wax nekk fa di daan sa doole bàyyi sa famille fii ñu ñëw créer laatal bile problème nga xamante ni sa xel du dal yokk li nga xamante ne yaa ngi koy jànkuwanteel foofu vraiment métti na trop trop trop ñu ngi koy mastaw bu baax a baax nii lay demee seen émission bitim réew ah. li nga xamante ne ni ah, waa diaspora bi ñu ngi koy dund muy moodu moodu yi muy faatu faatu yi di ay déception nga xamante ne ni ñu ñu leen ko teg ñu ngi seen pays d'origine maanaam fii Sénégal moo xam si lu mu munti doon vol viol infidélité wala vol ak euh, façon yi ñu mel abus de confiance euh, maraboutage arnaque lépp rek fii la ñu koy waxtaanee ngir wut ci solution mais xam naa moom bii ma am tey euh, man vraiment yéem na ma lool yéem na ma lool ndaxte dafa doy wax trop en tant que borom kër ak soxnaam nu ñu jégalantoo borom kër ak soxnaam doon ko doon nañ ñaar ñu jégalantoo lool boo demee nag ba sa soxna moom taxaw di la détruire ci ay sëriñ dem di xaw ma nu ñu koy waxatee mooy ak keneen beneen nit nga nga xamante ni sëriñ la ngeen. leen doon ay complice eh, di complot complot woo kenn ku ki nga xamante ne ni mooy sa borom kër nee na sax dem na ba bëgg a rey seen doom bu ñu am benn doom bu leen yàlla dënk rey ko si pet eh, di am yu muy def si suuf eh, vraiment doon na loo xamante ne ni c'est incroyable ah doy na wax trop te métti na nii lay demee saa su ne ah ñu leen di jox dig daje ba prochainement ci seen émission bitim réew képp ka nga xamante ne ni am nga déception boo dund mu bàyyeekoo sa réew fii si ñu la jël ci émission bi la di bitim réew ñu jagleel diaspora bi mu ngoo ko ñu ngi leen di jaajëfal jox leen dig daje ci beneen émission woy leen di ànd ak Dakar Buzz